للمؤمنين والسكون وجاءت كل بحمد وسكون إلى ولي المؤمنين والسكون وجاءت كل بحمد وسكون إلى ولي المؤمنين والسكون قل يا ànd ak convoi bi nga xam ne moom moo ànd ak giléem yi seeguñ wallaay li kéemaan la ñi nga xam ne ñoo ñu def si léegi ci live yi ci plateforme yëpp ñu ngi ànd ak yéen ci présentation nag yi nga xam ne moom la soxna Aïda Saliou Thioune ñu jël ko ànd ak moom def ko Serigne Saliou Serigne Saliou ne ko bis ni tey digal naa la ma nga ko ayca mbokk taalibe yi mbokki internautes yi mbokki àdduna yéen ñu ñuy suivre ci plateforme yëpp gis ngeen nu ñu ànd ak yéen ci liggéey bi mu jëm ci présentation nag yi comme ni ko sang bu tedd bi diglee moom soxna Aida Saliou ci kanam tuuti daañu dajee fële nga xam ne mooy ci enclos bi ñu def présentation bi waaye dugg ci këru boppam di woon leen li nga xam ne moom moo jëm ci condiment yi ndax fii mu ne nag yi lañ leen wan lañ leen wan waaye lépp loo xam ne rek dafa jëm ci màggal gi moom soxna su tedd si jënd na ko ba mi ngi ko teg mu jëm ci wàllu condiment yi bu ñu yeggee di ngeen gis la fa nekk ci lim ci ay nag li fi nekk ci lim ci ay giléem noonee la lim bi bare ci lu jëm ci wàllu condiment yi للمؤمنين إنك الهادي الرزيز أذب قولا لسوانا كل من ليس يدعي ولي المؤمنين وسبور للمؤمنين والسكون وترات كل يوم بعمد وسكون إلى ولي المؤمنين وسكون قل يا ولي يا بديع يا نذير للمؤمنين إنك الهادي النذير

moom mooy croisement ndaje jël tali bi nga xam ne moom moo jëm madinatu salaam pour ànd ak yéen mais gis ngeen bu nu ajee caméra yi tuuti di ngeen seen daanaka ñi jiitu yegg nañ presque Madinatu Salaam te leneen li ci ginnaaw. dëgg-dëgg jëmmi Serigne Béthio def ci màggalug Serigne Touba gi Serigne Touba moo ne woon bés bi bu yegsee see ngeen ma sant la yàlla xeebu ma ci ginaar nawu ma ci gileem ku mën na def jëfi Serigne Béthio ngi doole Serigne Béthio ngi kattanu Serigne Béthio ngi gis ngeen lii daanaka dix heures ba quinze heures ñuy wër mënuñoo yegg fi ñu jëm war nañoo xam ne kon li ñu tiital. du lu ndaw barke Serigne Touba te noonu lañ ko fas yéenee ànd ak ba keroog ñu yegg ci kërug boppam gi ndax bëgg nañu ginnaaw bi ñu leen wanee nag yi wan leen gileem yi noonu la ñuy tamit wan leen li nga xam ne moom moo jëm ci condiment yi ndax Serigne Saliou wax na ko gi bernde rindi ak cant la moom la borom màggal gi woote muy Serigne Touba soxna yi da jëf ci jëf ji mu toll ñu ngi ndaje di dugg ci madinatu salaam waaye gis ngeen gars yi nga xam ne ñoom ñoo yor li jàppandal ngeen mën a gis image yi fi ñu te fi ñu taxaw nii li la seen kanam ak li nekk seen ginnaaw ñoom mënatuñ ko jël dañuy topp ci yëf rek wan leen waaye ñoom sax xam nañ ne bu ñu ubbee ci angle yëpp taxul ñu mën a wane jëf ji yëpp ndax jëf jee ñu toll waaye wax naa leen ko fu ñu génne tamit yéen a gis nit ñi ni ñuy génne di xool yëf jëf ju mel nii la kenn mësul gis rawatina fii ñu koy defee di mbuur barke Serigne Touba seede sëpp benn seede la mooy lu mel nii kenn mësu koo gis lu mel nii la nit mësul gis lii kenn mësu koo gis barke Serigne Touba lii kenn mësu koo gis jëf ji rëy na barke Serigne Touba soxna Aida Saliou dafatina dafatina wallaay kenn mësu koo gis barke Serigne Touba ma ne ko wallaay wax dëgg lii de kenn mësu koo gis. gis ngeen إنك الوهاب المتين أذهب قولا لسوانا كل من ليس يكون مؤمنا الياس زمن أذهب قولا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا man laa ko defee jàppale ji mu nekk ci. ila qalil muminina wa sakur